بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا أليم ينزيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء Thierno Madani su ma ko nuyoo mooy ma Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla ma ko bëggloo kon ñoom seeni i cofeel ki seen xol yi la dugg roofu ci seen biir ñoom ñaar kon sëriñ bi Thierno Madani nee na li ko yëkk tey dikk siyaare si la ngir jëmi Cheikh Ahmadou Bamba mii nga toogal mu ngi ñaan yàlla getaay bii yàgg lool wax na ma ni getaay bii baayam yàgg na la ko sàkkul ci ndigal Cheikh Ahmadou Moustapha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou nee na fekk na baayam ñëw fa cer sëñ Moustapha sëñ ñëw fa ci kër baayam am nu ko jox ni ko damaa bëgg nga ñaanalal ma Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na loolu yàgg na nee na ci kanamam lool moom mu ne ko keroog nag kon bu ma toogee tey ba nga toog jataayu Cheikh Ahmadou Bamba man mii ma toog jataayu Cheikh Omar Fuuta yu kon alhamdulilah rabbil alamina kon sama bàyyi yàlla ñaanam yàlla nangu na ko lii moom la ko waxoon ni sëñ mën naa ko jot. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Thierno mm, nee na xale yi doon yëkkati bayt yi di woy yaa Muntaqa. bi Thierno Muntaqa làqoo. kenn si ñi nga xamante ne si ay góor yàllam ya mu daal di ñëw mu tagg ko xasiida bi di yaa muntaqa nuuranaa bi yaa muntaqa ne bi nga ñëwee si xilaafa ji bi nga ñëwee si xilaafa ji mu ne baytu yi xale yi doon yëkkati léegi mu ne yow yelloo nga ko mu ne lii xalifa bi lii sa teraanga la mu ne sa mag xarit Ceerno Muntaga Ahmad la ne at bu jot de doon yenu ay camion dugub mu indil ko Ceerno Muntaga mu ne Ceerno Muntaga ak sa mag ñoom ay seex lañu mm, su demee ah, su demee Ceerno Muntaqa woow xalifam bii di taawam ne Ceerno Madani kaay ñuy dem nga nuyu sa wayjur e mu ne cant ak ngërëm ñeel na borom bi bi Ceerno Muntaqa làqoo ne ñoom tur ji mu wéet si ñoom lool waaye bi nga ñëwee si xilaafa ji mu ne Ceerno Muntaga Ahmad Ceerno Muntaga tamit dikkaat na mu ne cant ak ngërëm ñeel na borom bi Cheikh Tidiane. mu ne Thierno Cheikh Tidiane mii di rakkam. kii Cheikh Tidiane bu Thierno Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar sa turandoo. kii rakkam la Thierno Ahmad bu Thierno Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar. man Mountaga Ahmad Bachir Mountaga Cheikh Oumar. kii. kenn la tamit si hadara bi Cherif Sy kii doomam la di Thierno Umar bu Thierno Madani ki mooy taaw kii mooy Thierno Ahmad bu Thierno Madani Muntaqa kii toog si feggoom mooy Thierno Ahmad Tidiane Ba ca Hoore Fonde ne Cheikh Umar amu fu mu def ñeenti weer walla at lu dul ñii seen dëkk di xoore fonde am na sirru bu Cheikh Omar doon wër kii Ceerno Abdourahmane Kan fële ca galo ya way juróom bu góor moo fa toogoon di jàngal alquranul karim kii Alhaji Moustapha Tall colonel douanier maa ngi ziar. maa ngi ziar maa ngi ziar. lii la kenn te newee kenn la si waxadara ji. moo toogal xalifa bi fii ci Bambey Thierno Ibrahima lii. kële Alaji Ali Sola. kii sëñ Cheikh Tedd Mbacke. sa doom Abdoul Hakim. kële Alhaji Ali Sow la moom tamit kenn la si waa xadara bi. kii jarbaatam la di Cheikh Oumar Sy honorable doom Alhaji Boubacar Sy. loolu godd ak ceerno mun ceerno Muntaga la tamit si xalifa bi ka ndakaaru sa turandoo la ceerno Muntaga Wilane ceerno Seydou Nourou Sy yaa Jurbel Mbacké jërëjëf ñuy ñëw te dalal bi ma ñëwee fii visité daara yi ah, ah, ah, ci la alu seen lii kii tamit alu seen kii mooy Thierno Alou Seynou lii kii tamit moo yor càmm ji. Thierno nee na am na ñu bari ñu fa nekk ñu desandi. ñoom ñu ngi màtt seen baaraam diwi cax. ñoom tamit bëggoon nañu ñëw si ziyaara la ñoom ñëwuñu. ñu buggoon ñëw. waaye seeni xol ak seeni cofeel lépp. Ceerno Madani indaale na ko moom ak ñi mu àndal ñëw si dëkk ju barkeel ji di Touba teraanga diine lislaam teraanga alquranul karim teraanga salaatu ala nabi mu daal di tànn weer bi di weeru baraxlu mu tànnawaat si njeextalu weer bi di weeru baraxlu di weeru Shaabaan di weeru baraxlu weer Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu loolu mooy ay tànkam mu ñëw mu ziyaara la Seyxal Xadiim ak leeram ji fi jolli yee leeram ji fi nekk ak ki nga xamante ne moo wuutu tey si xilaafa ji toogal fii Seyxul Xadiim ñépp ñu ngi lay xoolee gëtu Seyxul Xadiim radiyallahu taala anhu ak mbooleem say mag yi fi nekkoon yi fi jàll loolu mooy tànku sëriñ bi te fii mu ñëw sikk sàkk amul dëkkam la moom xalifa bi di Thierno Madani Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Umar léegi léegi mu ngi ñuy deey mu ñuy wax bi ñu nekkee fële ca kër Alhaji Abou Sall mu ne bi mu fi ñëwee ziyaara Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou mbake neeko ko at bi Cheikh Umarul Fuuti jaare fii si dëkk bu sell bi E e e ne képp ku ganese woon àdduna si at jooje fii si biir tuuba ñu ngi ko duppee Maulana Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu kon ay turandoom ñu ngi fii moom Cheikh Umarul Fuuti fii si dëkk bu sell bi mu am tamit lu indaale mu ñëw indaale fii fukki gàtt maam mu ne soxna maam jaaratullaahi buso moom lay dellu teraanga li daw dawoon diggante soxna maam jaara ak maam Cheikh Fuuti radiyallahu taala anhu ne yàlla na ngërmal nekk si ñoom tànk yooyee moo yëkkati xalifa bi Thierno Madani moom ak xadara ji mu àndal ne xalifa bi di seex Muntaqa Basiiru Mbàkke ñëpp ñu ngi lay ñaanal si borom bi yàlla na yàlla guddal sa fan bàyyi la fi mu ànd ak wér gu yaram ne yow de lislaam de wéetul da nga lislaam te tamee ku dimbali diin lislaam nga mboolem jullit yàlla yi yaa ngi jokkalante ak ñoom te da nga dolli tamit jokkale jullit yëpp ñu nekk benn si sa kàddu si sa làmmiñ ak sa loxowaat ne bi yàlla indee si xilaafa ji sa yoon premier bi nga ñëwee ndakaaru ñun ñëpp ànd nañu ak xalifa bi Thierno Madani ñëw ziyaare si la ñu fekk la sa kër fële ca ndakaaru ne bis boobee mboolemi teraanga yi nga def liñ fa naan ak liñ fa xéewalu ne barke jooje ba léegi ñu ngi koy géex mu ñu ko géexandoo lépp ba léegi loolu mu ngi daw tera sa teraanga mu ngi daw si ñun ne yow de ku baax nga ku tabe nga yow xalifa bi ku baax nga ku tabe nga Ceerno Madani ñaan yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla li ngeen sumba yéen ñëpp yàlla na ngeen ko naalandoo ne yoon yi yàlla na yàgg am seeni diggante mu lay nuyu mu lay ziyaara mu ngi lay nuyu tamit si ñi nga xamante ne ñoom nga wuutu fii mboolem ziyaar yi mu indi woon moom Thierno Madani lépp ay wa dëkk na la loxo teg na ko sa loxo mboole mi njaboot Cheikhul Khadim jaarale na ko si yow ñoom ñëpp mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di ziyaara ne yàlla nañu yàlla may ñu teewe waat ay ati at ay ati at kenn bañ a manqué lii kott mooy sababu yoon bi moom xalifa bi Thierno Madani mu ngi sant alhaji Abou Sall di ko gërëm moom tamit si sabab yu dëgër si la bokk ñu xam nañu yow xalifa bi lépp lu yëngu si kër Cheikh Umar fële ca rawdu ba ca Ndakaaru yow dangay ngay ñëw da ngay teew da ngay yónnee sa njaboot dañuy ñëw ñu teewal la sa loxo tamit day ñëw sa ñaan tamit day ñëw yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla bàyyi fi yàlla na yàlla guddal sa ba li ko dalee ci maam Mor Anta ba maam Jaara Bousso Dieng seen ndaje bi ñu daje woon ak Cheikh El Hadji Omar xéewal ak yiw yi fa amoon ñu koy donnante ba Seyxul Xadim ñëw muy ñëw di ñëw ba yegg ci ah Serigne Khalifa bi Mountakha Bachir koo xam ni boo ko xoolee xar kanam dafa set waxam dafa set eh, loolu mandarga li nekk ci xol bii la Cheikhun Bachuusun nit la koo xam ni ku xar kanam laab la saxiyun ku tabe la na wax na ko léegi kaana za ximami borom yittee la ndax diina ji kawe yasa dawaaman li nafi diini wan nasami lu muy dox yépp njëriñu diina ji la ak mbindeef yi amul xaj amul seen pour ñépp nekk benn cheikh muntaqa zahidun bal aabidun wariun ku déddu àddina la te am na ko waaye mu déddu ko kuy jaamu yàlla la waaye li ma ci gën a kii Habibu Thierno Madani saabiru niami soppee Thierno Madani la Thierno Madani soppeem la. tey tey day wax dëgg yàlla bis bu ci man la. sëriñ bis bu rëy moom la. ndax li fi li ci teew ci sama xol bari lool ci lu baax. nee teew ci xolam day. bari na lool ci lu baax. yoo xam ne jëmm ji toog eh, moo ko taxawee. yoo xam ne jëmm ju tëdd ji toog moo ko taxawee. loolu tax nag sama xol fees na dell ci ak mbégte. moo tax ma ne tey day xolam fees na dell ak mbégte. ndax koo xam ne da nga ko bëgg te gisuloo ko. waaw koo xam ne da koo bëgg te gisoo ko. waaw koo xam ne da nga ko bëgg ba noppi te tey mi bëgg fekk gisagoo ko. waaw bu jógee tànk yu baax yi mu yi mu jóg jógee Ndakaaru baag si fii eh, eh, teew fii sama kanam. jëf jure ji nga xam ne def na ko. Hmm. jógal boppam ak bokk yu baax yi mu àndal. waaw nee na ah, bu jege tànk yu baax tànk yu tedd yi mu jóg ah, ànd ak bokkam yu baax yi ànd ak jëfam jure ji teew fii ci kanamam. loolu ci koo xam ne da nga ko bëgg te gisuloo ko. <laughs> mu dellu ci waat ci wax dama waxoon rek koo xam ne da nga ko bëgg te ko. kon bu defee bu taxawee taxawaay bu rëy bu rafet nii eh, jëmee ko ci yow. waaw ah, nee na kon bu defee taxawaay bu rafet bu rëy bii jëmee ko ci yow. loolu dana yéeme lool ci man. waaw li Cheikh sëriñ bi nee na nee na loolu day dana yéeme lool ci moom. Eh, maa ngi sant sunu borom bu baax a baax. nee na naa ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax. moom mi may tawféex ji ci ci jëmm ji. mi nga xam ne moom sunu borom moo may Sëriñ Muntaxa moom tawféex ju rëy mu am ci jëmm ji. loolu maa ngi sant maa ngi maa ngi sant suñu borom bu baax a baax. waaw nee na loolu day mi ngi koy sant borom bu baax a baax a baax. waaye nag maa ngi sant Cheikh Cheikh Madani maa ngi koy sant cant gu rëy a rëy rëy. waaw nee na ngi dellu dellu si di santaat Cheikh Madani Cheikh Madani Thierno Madani cant gu rëy rëy rëy cant goo xam ne amul fenn fu mu ko yemale cant goo xam ne amul fenn fu muy tàmbalee amul fenn fu muy yem sama xol sedd na bu baax a baax a baax a baax waaw nga ko mu ne xolam sedd na bu baax a baax a baax amul benn bis boo xam ne mën naa ko am bu mu bii gën moo ci ëpp mbégte ci bii waaw nee na amul benn bis boo xam ne mën naa am mbégte mu ko ëppal bis ci bis bii mu am tey ci sëñ bi Thierno kon na ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax waaw kon nag sëñ bi ne koy sant bu baax di ko delloo gërëm li nga xam ne moom la sunu shaayir bu mag bi nimu mu ni mu tënkee diggante bi waaw noonu dégg nañ ko bu baax a baax a baax waaw fat danañu fàttali. danañu soññ. waaw nee na li nga xam ne moom la waykat bu mag bii wax bu bu bu li li li mu li mu li mu tënk. Ceerno Ibrahima lii. nee dana ko dana ko fàttali. dana ko soññ. kon noo ngi noo ngi gën sant rek. waaw gën a sant bu baax rek. parce que ne li fi nekkoon mu eh, am mu am fas yéene noo gënu nooy rek nu am nu am ca yéene gën a li diggante bi eh, lu baax li nga xam ne moo nekk ci diggante bi ci diine makarimul axlaq ci taxawaay ngi gën a fas yéene gën a sedd suñu laxtaay ci gën a gën a gën ci eh, diggante boobu eh, ba gën cee mën a taxaw sunu kem kattan loolu rek moo fi moo fi nekk kon li nekk ci sama xol mënu ma ko wax waaye yàlla xam na ko xam na ceer Thierno Madani itam du ñàkk lu mu ci xam yàlla moo def suñu diggante cofeel gi yàlla moo ko def su moo ko def ci man ma sopp ko ci ba ma ko déggee turam rek laa ko soppaloon sama bopp bi ma ko gisee itam ma gën koo sopp gën koo bëgg waaw gën koo bégee hmm. kàddu xaw ma euh, lu lu lu may wax. ndax am ndëgte. waaw kenn mënu ko firi. moo tax ma bu ci amoon lenn luñ ci luñ ci luñ ci rek mooy gàtt gi. waaw waroon li ci doon doy ci man. te dara dox mu tey sax moom moo woon fi ay fan yoo xam ne dañuy xëy ci moom di ci gont. loolu boobu loolu moo ciy sedd sama xol kon mel na ne bu ci dalee amee rek gàtt gi rek moo ci moo ci nekk ci loo xam ne neexul fi noonu buñ sañoon ay ay fan la fiy def bis buñ xëyee di xëy ci moom di gont ci moom tubaarkalla mu moom toujours mu ngi fi si yow. waaw maa ngi fi. toujours moom mu ngi fi si yow. su ma la namee moom moo wettali. lii <laughs> moo koy wettali. waaw waaw. jërëjëf. Hmm. xamee ne. ràññi ngeen ko. Hmm. ci taxawaayam boobu. Hmm. waaye ban ko jëkkee gis. léegi mu ngi mu ngi bëgg a yàgg. waaw 1980. 80 xam naa wax na la ko mars 1980. booba ba boo ko gisee rek. waaw ko moom itam. la eh, amoon cër ci man. ba ci jotaayam bi. waaw marché bi nag naka dana ca Lagos. fekk sëriñ nekk ci ab tukki. ñun ñu ànd ak moom. moom mi la àndal moom waaw ñu koy gunge. ñu ñëw ba ñu ne taalibe yi dalal ko ci benn hôtel. mu ñuy wax Bristol. néeg bi ñu nekk nii nga xam ne fi lañ dalal sëñ bi mm-hmm. nekk néeg bi ki tegale abo fanaan mm-hmm. fanaan te yëgoon <laughs> bi ñu ubbee rek yem ci moom waaw keroog loolu mars xamuma koon booba <laughs> waaw ne sëñ bi doxat mu mën ko uh-huh. ay fekk moom abo mii daanaka lépp noo ko defandoo nga ne ba fi nu toog yàlla dogal ma nuyelu ko sëriñ bi mm-hmm. ay sëñ bi da wax ne ko boobee ba fi mu ne mm-hmm. saa su ma la gisee wala ma xalaat la rek am na yiw ma la ma bu ma la yokk yokkal ci li fi ne <laughs> oh, waaw kon nag alhamdulilah kon nag diggante moom ne li mu wax noonu ziara mu ne bi nga yónnee sa ndaw si ziara Ceerno Seydou ak Ceerno Muntaga masili mu hatim mi mu ne nekk na sama masil bu baax a baax wuuti na la fa bu baax a baax ne kontaan nañu si nañu si moom bég nañ si moom. ne taalibe dëgg nga fa yónni si ñoom. nu ne du la may garaad bu weesu garaad joojee te loolu moo la gënal. mu ne loolu boobu moo ko gënal mu nekk ta garaat taalibe. Thierno nee na alhamdulilahi mooy bi Cheikh Mouhamed Bachir bi mu fi jóge bàyyi ko eh, Thierno Mountakha moo jógee Ndakaaru ñëw ba ca àll ba fa fekk fa mag Serigne eh, mu mu mu dina ko jàll yàlla def na defal na ma taw fekk man dong maa ko doon toppatoo nee <laughs> allah ko ne bépp teraanga bi leen touba walla waron waraloon defalal si wàllu teraanga si wàllu bernde lépp alaji abou sall defal na la ko xalifa bi su ko ne déet nii nii rek abou nee ko déet sañu mun taxaa moo ne naa def lépp naa leen wuutu si lépp ne ko Thierno nee na nag comme que sañu mun taxaa moo la ne na def kon nag ndigal la defal Ceerno nee na jërë ngeen jëf jër jërëjëfati ne yow ak mboolem sa hadara jërëjëfati ne jërëjëfati jërë ngeen jëf yàlla nañu yàlla may suñu barke mag yi fi nekkoon te ñu dem yàlla may ñu ñu jëflanteeg mboolem adduna ji ne lu yàgg lu yàgg lu yàgg ñu mun tamit topp si tànk mag yi fi ñu tegoon seen tànk ñu teg fa seen tànk suñu borom may ñu lépp lu ñu jëfoon ñu liggéey ko ñun tamit ñu jëf ko ñu liggéey ko. ndax tamit ñu mel ni mag ñi meloon yàlla may ñu ñu mel noonu. ne xalifa bi jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum. amiin. amiin amiin. من صفاء أبدا بخليد نرقد زمان وقدامي أنشر في الكافرين